Sonko yal na sa jàmm bëri yow la Sénégal bëgg yow la jeunesse bi bëgg Macky yaa baax ci réew mi Macky yaay dundal Sénégal Macky sénégalais yi xoolal tey jii yow Macky boo ne woon tey jii man du ma bokk troisième candidat barki alxuraanu Karim kër Mariam fay la ni ñëw jël la yëkkati la da lay teg ci aksi da lay yóbbu prison direct parce que doyluñ ci yow. gars yi 46 mandat la ñu bëgg ak yow bëgguñu kenn muy folotu Sénégal ku dul yow ku dul yow Sénégal soxlawul ko Macky la lañu wax Macky lañu wax mag ñi xale yi ne Macky jeunesse bi ne Macky ndaw ñi ne Macky am na liir yoo xam ne ñi ngi seen biiru yaay juddooguñu sax Macky la ñuy wax laa leen gëri waay Macky